bi nga xam ni mébét bu ñu amoon pour ndaje ndaje ak xalif bi muy sëñ Muntaqa yan na ko yàlla may wér te may ko mu gudd fan lool di ko gërëm lool ci lum ñu defal muy xéwal gu rëy ci ñun a ah, te ren dañuy waxoon ni balaa ñuy def dara ci màggal gi mu jëm ci wàllum sensibilisation dañuy dajale Sénégal yëpp muy acteur Sénégal yëpp ñu ànd nekk benn mal dem wuti seeti xalif bi sàkku ci moom ndigal d'abord bu ñu amee ndigal ci moom ci li nga xam ne moom lañu bëgg a def ci wàllu màggal sàkku ci moom ñaan mu biral kàddoom jëmale ko ci taalibe yi mu jëm ci wàllum sensibilisation ci wàllu màggal gi waaye mu ñaanit ba mu musiba ak balaa yi nga xam ni Sénégal mu ngi koy dund musiba ak balaa yooyu yëpp yàlla fànqal ñu ko te ñaan googu yëpp def nañ ko moo tax ñuy sant yàlla bu baax a baax leneen li mooy sant acteurs yi nga xam ne ñoom la àndal tey nga xam ne tey Sénégal moo fi teew boo tourné sama ginnaaw da nga gis képp kuy responsable syndical yaa ngi taxaw képp kuy responsable gare wala regroupement régional yaa ngi taxaw képp kuy responsable transporteur yaa ngi taxaw képp kuy association mécanicien yaa ngi taxaw képp kuy auto école yaa ngi taxaw képp kuy nga xam ne yaa ngi yëngatu ci wàllum euh, maanaam en euh, wàllum kaaraange yoon yaa ngi taxaw même les victimes d' accident ñi nga xam duñ jëlee laago ci wàllum accident teew nañu taxaw nañu ñu ma fàtte nañ ma baal mais pour dire que ñëpp taxaw ànd ak man gunge ma ci li nga xam ne moom la doon sàkku si sëñ bi te sëñ bi may ñu ko. kon loolu ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax a baax laata ñuy continuer programme bi euh, beneen bi mooy ci nawet la ñu nekk tali bi day tooy day ngelaw visibilité du am lisibilité tali bi du am li ci war mooy ah, ñu daf ndànk charte woo respecté lu code de la route wax ci booy dawal ci nawet ban vitesse nga daw ci booy dawal ci nawet no ngay def ak say say say sa foyer lumineux mooy faar yeeg feu yeeg yu ñu demee ci booy dawal ci nawet bu nawet bi taree lool nga war a euh, gaare si boor bi def sa triangle de présignalisation ci booy dawal ci nawet nga bañ a gaare ci taatu garab si booy dawal ci nawet nga jël ses dispositions yi nga xam ni wax dëgg yàlla boo ko boo ci farloo bañ ci am yàlla mën nañu may mucc ci wàllu tali. ñu ciy ñaaxaat euh, mbokk chauffeur yëpp su ma nee chauffeur nag ñëpp la concerné muy chauffeur administration ba muy chauffeur particulier ba muy chauffeur professionnel ba ñëpp ci bokk yam kon tali bi ñun ñëpp ko bokk na ñu ànd sàmm ko te bu nu ci amee mobilisation comme ni ñu ko amee nii yàlla mën nañu may sutura yàlla mën ñu may tawféex ba ñu dem ñëw ci euh, màggal ci jàmm dellu si jàmm comme ni ñu ko defee woon ci màggal Porokhane ba am zéro accident mortel. daanaka dafa wóorul rek bu ñu xamee guddi nu mu mel nga xam ni daanaka visibilité bi dafay wàññeeku daanaka de de quarante cinq pour cent wala cinquante cinq pour cent visibilité bi dafay wàññeeku maanaam gis bi ngay gis bëccëg bu guddee quarante cinq pour cent yi dañuy wàññeeku si li nga waroon gis mu booleeg lu yàlla xam doy na léegi oto yi seen système lumineux yi mooy faar yeeg feu yeeg yooyu yu si bari nekkul aux normes nga xam ni bu la tegee sax daanaka doo gis booleeg ñu nekk jamonoy nawet booleeg tali bi di tooy booleeg euh, mala yi di traversé booleeg lu bare. loolu nag li ci lu la mu muccal mooy nga charte woo de la route looloo waraloon bu ñu seetloo ni téeméeri accident yu boo jël juróom-ñett fukki yi la daan am te si juróom-ñett fukki yooyu euh, si téeméeri boo jël si juróom juróom-ñett fukki yooyu. Euh, juróom-ñett fukki wala juróom-ñaar fukki ak juróom yëpp dafa impliqué auto transport euh, moo xam marchandise la moo xam personne la donc day yell ñu jël décision ci wàllu woowu loolu moo indiwoon mesure boobu te ba ñu jëlee mesure beeg bu ñu defee évaluation bi ak gouverneur yi région yëpp joxe seen ay rapport gis ni accident yi bu doon tey téeméer wàññeeku na daanaka ba juróom fukk wala juróom fukk ak juróom yàlla nattuñu nag ñu ci weer bi ñu génn ñu am accident fii ci Ngën Saar muy accident bu metti bu lu woon accident boobu tey mënoon nañu wax ni ah na nañu dolli góorgóorlu parce que mesures yi ñu jëloon kat am na effet donc ça veut dire que accident yi wàññeeku na waaye gravité bi moo yokku te lu ko yokk mooy benn accident boobu rek lu tolloo ko euh, ñaar fukki nit ak lu topp faatu ci accident bu mel ñaar fukki nit ak ñeent président ñoo ci faatu woon moo tax ci magal bi ñu dëgmal ba tey ñuy wax ak yéen nii mesure daw guddi gi moo fi ne Euh, état nga xam ni état bu responsable la bu ñëpp dégmalee lu met lu tolloog juróomi junne juróomi millions yi doomu adama ak presque ay millions millions oto daanaka di dégmal benn bërëb ci benn bés wala si ñaari bés loolu dafa laaj taxawaay ak matuwaay moo tax taxawaay yeeg matuwaay bi état bi jël na ko ànd ak force de défense mooy police ak gendarmerie sapeur pompier yi croix rouge les bonhommes de la circulation transporteurs yi euh, association mécan euh, dépannage gratuit ñun ANASAR ñun ñëpp ñu ànd si xam ne suñu mëbët mooy ñëw màggal si jaamu ci yàlla delluwaat suñu njaboot. kon daw guddeeg daw bëccëg bakkan moo ëpp loolu yëpp bu ñu nu ñu def ba sama bakkan yi rek moo ëpp doole luñ ci am ak ak kañ ngay àgg ak sàmm bakkan yi moo ko doole mais ba fii ñuy wax ak yow mesures yooyu moom la ñu moom la état bi doxal. ba ba ñuy ba ba ñuy jot beneen ndigal bi jóge si kilifa yi parce que premier ministre nag moo xaatimoon donc euh, donc euh, moo moom comment dirais-je arrêté boobu wala du arrêté sax moo xaatimoon euh, ndogal yooyu moo xaatimoon ndogal yooyu ñu war ko jëfe te moom lañ nekk. Ah, porte bagage nag loo ci wax ale la yowoon nag ñu rendre hommage acteurs yi keroog ba ñu waxee ni wàññi nañu porte bagage yi ba tey jii ñuy wax ak yéen wax dëgg yàlla à quatre-vingt-dix-neuf pour cent. ñu ngi auto autochargement bu leen waxoon bi maanaam bu dee bis la ñu jox ko quatre-vingt-dix centimètres bu dee dix-neuf places mooy mini bus ak yu ñu demee ñu jox ko soixante-dix centimètres bu dee sept places ñu jox ko cinquante centimètres. allé woon nag ñu ngi koy respecté dina du ñàkk nag mu am benn benn mais allé woon ñu ngi respecté loolu te bañ ko respecté loolu gisatoo oto bu daanu ndax chargement bu bari ci kaw. kon loolu aussi mesure bu baax la le temps que deux ñu waxoon yi wala un an yi ñu waxoon yi ne bu ñuy jóg ma lee bi. dootuñu nangu si Sénégal auto transport bi am porte bagage parce que day am soute à bagage wala mu am transport donc de messagerie bi nga xam dafay topp auto yi di dem.